بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziar leen ñu ngi ñëw ci sunu émission yowmal jumaa tey nag ñu ñëw fii ci Caaroy Lansar ci biir dëkk bi tabaarakallahu war a yegg ci jumaa ji taataan li nga xam ne moo fi bàyyi ko comme niñ ko daan defee nga xam ne bu ñu ñëwee daan déglu nodd yi déglu itam xutba yi ànd ak ñoom julli bu ñu nuppee toog déglu waa jumaa ji war fi fekk rek imaam Thiam wala imaam Sock kuñ fi fekk rek tabaarakallaahu ba ci sëñ Malick Sow ak mbooleem ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi Cheikh Sow yàlla na yàlla dolli ndam ci ñoom kon Ibou Cissé mu bàyyi la àndal bëgg a dugg ci jumaa ji xaar waa waa dëkk yi yéeg génn si ñu toogandoog ñoom jullendoog ñoom bu ñu nuppee nag yegg ci waxtaan yi ñu war a def allahu akbar ñu dugg ci biir jumaa ji allahu akbar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 الفلاح أي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الصاغرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول عين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين فأجابه المولى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين أيها الإخوة عليكم بتقوى الله وتاتي قال تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا وقال أيضا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيما أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا سرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل من ولا شيئا من أمور المسلمين أو من أمور الأمة لم ينظر الله في حاجته حتى ينظر في هوائجهم وقال أيضا ما من أحد يؤمر على عشرة فصاهرا إلا جاء يوم القيامة في الأصفاد والأقلال حتى يكفه عدله أو يوبقه جوره وقال أيضا ما من أحد يكون على شيء من هذا الأمة من هذه الأمة أو من هذا الأمة فلا يعدل فيهم إلا كبه الله في النار وقال أيضا ما من إمام أو وال يغلق بابه دون سوي العاجة والقلة والمسكنة illaa axlaqa allahu abwaaba alsamaai duuna xallatihi wa xaajatihi wa maskani wa fihi li kulli sayin aafa wa aafatu hada addiin walaatu suu allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna ittibaahu wa arina albatila batilan warsuqna ijtinaaba allahuma axsin aaxibatana fi lumuuri kulliha wa ajirna min xisi dunia wal axira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 إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الله أكبر sami allahu liman hamida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 والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يصبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا rahmatullah assalaamu aleykum wa rahmatullah yi ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp ziyaar leen ñu ngi ànd ak yéen ci suñu émission bi nga xam ne ni leen ko waxee woon rek mooy émission yoomal jumaa nga xam ni dañuy dem ci euh, aljuma yi ci jumaa yi taataan la nga xam ni moo fay bàyyikoo ci jullit yi di dem ci jullit yi rawatina na xutba jumaa yi eh, nga xam ni war nañu àndandoog waa jumaa ja déglu nodd yi bégale ko nit ñi waaye déglu it alxuraan ja àndandoog ñoom nag jullee ndoog ñoom bu ñu noppee nag eh, déglu xutba bi bu nu noppee julli ba noppi toog nag ak waa jàkka ja ndax jumaa joo dem am na nu muy doxe am na nuñ ko tàmbalee am na fu mu sosoo am na fu mu bëgg mu jëm fa ndax néegu suñu borom la te nu ca waay jàppe rek moo tax it TFM daggal leen émission bi jàppe ko ci néegi yàlla yi euh, su ko defee rek du ñu sori tey ñoo ngi fekk imaam Thiam ak imaam Sow imaam Sook euh, nu ñëwoon fi nag ndeysaan wax ja xawoon a am euh, ca son ba ay mbir yu xaw a yéeme ma ni leen nañ bàyyi rek ba yi jàllaat nu demaat jëliwaat ko loolu nag moo nu may tey nu dellusiwaat macha allah. Euh, su ko defee damay jox imaam mu nuyoo rek dellusiwaat ci xutba bi tuuti ñu jox imaam Sow ak waa commission bi nga xam ne ñoom ñoo yor jumaa ji ba mu tàmbalee ba léegi fan lañ ko bëgg a jëmee incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu nuyoo yu gën a sell te mooy nuyoo boobu ñu leen nuyu waaye di nuyu it sunu gan ñi nga xam ne ñoo fi ñëw di leen yóbbante nuyoo itam ca seeni kilifa yi leen fi yebal yal yàlla boole leen ñoog seeni kilifa yëpp jàmm ak yokkute ci dara yonent bi sallallahu alayhi xutba bi daanaka ni waxee leeral nañ ci lu xaw a bari ci balaa ñoo julli waaye du dara lu may nit war a yëg ne mbindeefi yàlla yëpp moo ci gën a rëy te it mooy ki wuutu yàlla ci kaw suuf si ngir defaral ko ko waaye li fi yàlla bëgg nun ñoo war a taxaw ngir loola am lim fi bañit ñun ñoo war a taxaw ngir loole bañ fee am kon daanaka xutba bi ci foofu la baase wu fàttali nit ñi rawaate na kudib jullit dafa war a jàng diine yàlla ji ndax iqra bismi rabbika moo jëkk wàcc ci nun soo ca paree nag leneen loo jàngi lu ne war nga koo jàng kon fàttali it kilifa yi kenn ku ne xam ne li mu ilif ni ko yonent waxee ñun ñëpp ay sàmm lañ ca sàmm bu ne ëllëg danañ ko laaj la mu doon sàmm doonte càmm gi ëppante na doole kon ba ca ka ilif réew mi yëpp ñu bàyyi xel ci ne lépp lu yàlla teg ci sa loxo muy imaam bee ku doon dana bés dana ñëw mu tegg ku ci say loxo su boobaa nag nettali bu rafet dana ca baax loo rek la boo ko defee yonent bi sallallahu alayhi dinu ñaax lool ci ñu góor góorgóorlu ci kilifteef gi ci lin ilif nu def ca lu nu man ci rafetal ak ci taxawe ba mooy li ñu wax yàlla ngi lay yonent bi mu ngi lay leeralal ci hadis ne ñaari rakk yoo julli yow mi nangoo ilif rek daanaka loolu lay tekki ndax àdduna il faut ñu nangoo ilifante yow mi nangoo takk soxna nangoo yore boobu kilifteef di góorgóorlu ca ñoom ak njaboot ga sa ñaari rakk moo gënal yàlla juróom-ñaari fukki rakk ki ko mante bañ koo def kon loola ñaax ñu góorgóorlu waaye mu dinu moytuloo tooñ ne ñu ittaqu zulma fa inna zulma zulumaatun yowmal qiyaam kon waaye mu di ñu moytuloo itam alquran moo ko wax laa tarkanu ila alladina zalamu fatamassakumu naar bul sukkandiku ci boroom doole bay def naka su noonu ndax bu ëllëgee ki nga xam ne kenn jaaxalu ko dana la booleek moom ah teg mbugal kon noona la ñuy ñaaxe ci dëkkandoo ba nettali ñu ndaw su baaxoon su daan dëkki julli ak koor waaye mu daan tooñ ay dëkkandoom yàlla yonent ne tooñ googa mu doon tooñ dëkkandoo moo ko yóbbu safara kon mooy li ñuy wax luy daaneel ay jëf di ko màbb ñu war koo sori muy bokkaale yàlla ak yu demee noonu kon ñun ñëpp ñu góorgóorlu ah, yal na nu yàlla dolli njub teg ñu ci yoon wuy siraatal mustaqim waaye yal na nu yàlla may sunuy mbir yëpp ñu baax jiite ko te mooy li ñu ñaan ci xutba bi allahuma fa walli umurana xiyaarana wala tuwalli umurana shiraarana bi waasiya ñoo ko koy ñaan waaye yàlla na ahsin aqibatana fil umuri kulliha suñ lépp yàlla na yàlla rafetal ko rawatina mujj ñu yemandi foofu ba kanam wasalaamualeykum wa rahmatullah wa sallallahu wa sallama ala ñi ñi ngi leen di nuyu te di tatagal gan baax ñi jógee ci di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yal yàlla barkeel seen jumtuwaay bii moo bëgg ngeen bàyyi xel ne jumtuwaay la boo xam ne bii jumtuwaay bu am solo la jumtuwaay la boo xam ne man ngeen cee liggéeyal lislaam jumtuwaay la boo xam ne bi man ngeen cee jubbanti nit ñi waaye jumtuwaay la boo xam ne it mën naa sànk ñu bari li ñuy tuddee presse tubaab ba dëkk Amérique bu ñëwee fii wut fi la voix de l'Amérique wut fi ay fréquence di fi wax kee dëkk Allemagne ñëw fi am fi la d'Allemagne France am fi rajo bu fi sax dàkk la voix de Chine sax dégg naa ko ah waa moo ndax ñooñu ak mbaax walla ak bëgguñu ñu rekk moo tax déedéet dafa am message ak bëgg lu ñu bëgg nit ñi gëm ko ci ñoom lu ñu bëgg nit ñi xam ko ci ñoom ñu jaar ko ci yéen di ko tas kon jàpp leen na lii ngeen yor jumtuwaay la boo xam ne man ngeen ci am ngërëmul yàlla bu baax yal na ngeen ko am waaye mën na cee mënees na cee am safaan bi ndax li ñuy tuddee orientation ak tawji yéen rek yéen a ko mën a def bu ngeen bëggloo nit ñi dara te tëral ko nit ñi danañu leen ca fekk ngir jumtuwaay bii leen yàlla jox kon lii ngeen defar tuddee ko aljumua te jumua day am minbar te minbar mooy barab bi nga xam ne fi la ñuy waxee mbiru jullit yi ngeen di ko jàllale yal na yàlla boole leen ci ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan balligu anni walaw aaya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dénkaane woon keroog xajjatul widaa na ngeen fexe ba jottali jottali leen sama wax jottali leen doonte benn aaya ngeen di jottali ah nee na rubba saamiin awaa mën naa am koo xam ne kii li ngeen koy jottali ka ko fekke woon sax moom moo ko koy gën a dégg ngir média yi ni ñu xarala yi ci yàlla def yal na yàlla dimbale leen ci ngeen fexe ba tas lii nga xam ne li moo di diine diine tas na sax de mais ngeen am ci orientation yu leer ndax kat média ne nañu mooy ñeenteelu pouvoir kon am ngeen daraja am ngeen wàccuwaay yal na yàlla def ngeen xam seen wàccuwaay imam bi wax na ko sànq ci xutbaam ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu jubalal ñu sunuy njiit yàlla bu tooñ am te yàlla dafa waxoon ne in jaakum faasiqun bi naba'in fa tabayyanu rikk waay bu nit ñëwee ne leen Malick Sow mais terroriste la Malick Sow mee nangam nangam ah rek yàlla yonent yàlla nee na na ngeen ko xeeñtu bu leen jàpp ci waxi ma Samba ma Demba rek tax ngeen dóor ku ngeen warul woon a dóor wala tooñ ku ngeen warul woon a tooñ kon yal na yàlla dimbale leen dimbale ñu ba ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi yàlla dimbale leen may leen al albitaana saaliha loolu dafa jar di ñaanal ku jiite am réew. albitaana saaliha mooy ñii la wër doon ñu baax ñoo xam ne ñi dañ lay giide dañ lay jojjanti waaye duñ la jay loo yëkkati rek ñu ne ah loolu de sañ nga ko loolu de man nga ko loola du defam réew léeg-léeg kilifa war naa yëkkati dara même kilifa këram am ku ko ne ah góor gi fii nga bëgg a aw baaxul mu delluwaat ginnaaw yal na yàlla dimbaleen ñu ci te nag loolu yéen ñi yor média bi yéen ko man kon yal na yàlla dimbale leen am na fu bari fu ngeen mën a àgg foo xam ne fii ñun imaam yeek ñi ci des ñu faa àgg waaye man ngeen a jël seen kaddu kaddu ilimaan yi segg ko ba fexe ba mu àgg fu sore sore sore sore sore sore yal na yàlla defal leen ko euh, yal na yàlla dimbale leen ba mission bi nga xam ne ëllëg yàlla dana la ko laaj sekk bu ëllëgee bu leen ko laal yàlla laajee ngeen am lay bu wér wu ngeen mën a teg ci loxoom te moo di daan nañu dem ci jumaa jee jumaa ya de di seet min bar yi di fa jël la fa nekk di ko jottali mbokk jullit ñi ngir ñu jaamoo ngir ñu jojjanti seen bopp ku nekkoon ci lu neexul yàlla itam nga jàjju dellu ginnaaw yal yàlla nangul leen seen jëf yi te boole ko ci amal saaliha ñu ngi ñaanal seen rajo bi yal na yàlla ak télévision bi yal na yàlla barkeel ko yal na ko yàlla àggale fu kowe seen njort fi ngeen bëgg mu àgg ci baax ak yaatu te jëriñ réew mi yal na yàlla yóbbu ko fa kon ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen balwaq baal nañ leen yàlla yàlla boole ñu jéggal ah, man sama wax fii liggéey bi bañ koo commencé ba léegi yàlla dafa def mu nekk ci sama loxo bañ koy njëkk a commencé bureau bi laa bokkoon ñu defoon ma inspecteur bi war di contrôler xaalis bi ñu fiy joxe yàlla def muy dox dox ba mujj man nekk président bi yor liggéey bi fa tabaarakallaahu euh, sëriñ góor gi nga xam ne moo fi nekkoon te tëdd ci gannaaw dafa daan wax ne mag boo ko bëggee yar danga koy gën a yaru loolu nag moom lañu xale yi def tey ñi ay kilifa lañu ñooy ilimaan yi waaye ñun ñoo leen fétt ak mag waaye yar nañu ñu ci seen jikko ba fa tabaarakallaahu jumaa ji nag sëriñ bi jumaa boobu xaw a jafe liggéey la ndaxte dafa làqu biñ ko sosee dañu waxoon ne borom kër gu nekk bu weer dee na nga indi 1000 francs joxe ko fi ñu def loolu départ ca ba mujj gi daal joxe bi xaw a ñàkk solo lool ñu daal li may fal président jox ma liggéey bi ma def benn commission boo xam ne dama cee bind fukki nit ak juróom benn koñ bu nekk ci dëkk bi bu ñëwee fii ma la leen nag bu weer yu dajee dale dee nañ daje ci buntu jumaa ji ker ba ñu njëkkee daje ma ne leen kenn ku ci nekk ci gox nga jóge laala bind ci quartier bi fu nekk xam nga ko nga dëkkal léegi dañu bëgg weer wi dee ñi dajale première di laaj bala dix mille francs mille francs yi loola bañ ko defee tabaarakallaahu ci lañu nekk ba mbir ma toll fii tey ñi nga xam ne nag ñoom la fi yàlla teg ñoo jub amuñu soxla ci xaalisu jumaa imaam mi jaam mas na fi dem làqate làqate ba indi million cinq cent mille yoo xam ne Serigne Lamine Diop rahmatulah ali moo ñu moo ko ko jox ci jumaa ji ñu def ko ab seet ñëw fii woo ne ma ma bëggoon ñeent nit ak man ñi juróom ñu dem sant Serigne Lamine Diop ndax jox jox nañu xaalis boo xam ne fii la war a jëm booba Serigne Lamine Diop mu ngi BICIS banque BICIS la nekk ñi dem fa ñi santante ak moom pare alaaj Malick Sow mii ca la. Alaaji Maalik Sow mi til ak imaam ak ñeneen ñi nga xam ne baax na ak ñi nga xam ne yàlla dogal na àndoon fi te nekk nañu fi tey bañ waxee ba pare ci la sëriñ door a génn sec bi jox ma sëriñ la mi ngi toog nii gisee baa ngi nii ma dem ak sama dentité génn sec bi joxe jox ma million cinq cent mille te jamono yoo xaw naa yàgg li may wax yàlla dogal ñu wuñ ñi ko ñëw biñ ñëwee ma waxtaan ak mbokk ci mbokk yi man la leen yéen ñi nga xam ne yéen a ngi doon dox lii di yor seen oto di dem di ñëw waay waay seet leen lu ñu leen war a dompal ci lii ngeen defe ko seen i essence Malick Sow mii ne ma sëriñ mii dong moo dem di ñëw àndul ak kenn moo dem ci kii léegi mu ngi nii néegu ma kër mu ngi nii door a pare amul sees amul fauteuil amul kii ba sujaata sax amu fa ma ñëw ci moom wax ko mu ne ma soxla ma ci virgule sama kër gi nii mu nekk mën naa fee nekk ba faatu fa tabaarakallaahu xaalis booba la ci gën a bari morgue bii ñu def tey ci lañ ko defee booba dëkk bii xaw naa jafe ciment sax booba tan si ko si ba fi nekk am am xaalis jënd ciment sax booba tan jafe na benn mbokk ñëw fii ne ma ku ñuy wax jaañ mooy directeur finance bu bu euh, Sikosim te da lay dimbale jàkka yi ma jël mbooloo ñu ànd fa biñ demee nuyoo ma ne ko daal sëriñ bi ñun de dama fee ñëw ñaari aajo mu ne ma bisimilah ma ne ko euh, ciment dafa jafe léegi ba xam ne boo amee sax xaalis pour nga jënd lu jafe la ma bëgg boo am naa fi lu mayor nga jaay ñu ut fexe ñu jaay ñu ciment te it nga dimbale ñu dañuy liggéey ci jumaa ba toll ci morgue ñu bëggoon loo ñu mën a dimbale te yàlla tax jaañ daal ne ma dinaa la jox ñaari ton ci jumaa ji ñaata nga bëgg a dindi ma ne ko juróomi ton mu ma jox ko xaalis ba mu jaay ma juróomi ton waaye sëriñ bi fii ku fi mas di joxe dara rek boo ñëwee loo joxe bu ëllëgee boo ñëwee di fekk lu bees loolu la njiit yi def amuñu soxla ci liñ fi liñ joxe lu dul ñun ñu koy liggéey loolu man maa ko mën a seede imaam caam ak soog ñi xamuñu lan la yalwaan lu ñu yalwaan ci juma ak fan lañ koy def trésorier ak ñi nga xam ne ñoo koy liggéey rek ñoo ko xool duñ contrôler duñ xool wa tabaarakallaahu léegi nag li tax jumaa ji xawee jafe làqu gi mu làqu ah bari néew na borom wërsëg yi fii jaar bën koo gis parce que gis naa benn jàkk boo xam ne du ma tudd seen tur dañ def fondation rek benn waaye jaar ci kaw tali bi nii lan la ñu ne jumaa mu la jox leen ma déwi bi ñu jox ko ko mu fay lépp ma ne cey bu ñu amoon jàkk ju dégg yoon wi de dina baax waaye teewul njubag ñi ko yor tax na lii ñi ci góor góorgóorlu ba yegg fi tey ñi yegg fi kon fa tabaarakallaa njii di fi nekk yàlla yàlla bàyyi leen fi yal yàlla guddal seen fan fa tabaarakallaa alaaj njaga nag yow ah, toolu yàlla dafa yaa day ëpp benn jëwriñ kon yow ci jëwriñ yi dafa ci nga bokk yàlla yàlla wattu la booleeg ñi nga nekk ca rajo ba kilifa ga yàlla na yàlla yokk leen ba ngeen yëg ne yokk ngeen ci barke yonent bi jërëjëf mbokk yi jërëjëf tam alaaj Thierno yàlla na yàlla fay waaye jërëjëf tam imaam Sook eh, imaam Sow ak imaam Thiam mi lee tabarakallah Seex Sow mi nga xam ne boobaak léegi bàyyiwul itam ñu ciy jokkoo rek muy ciy jàmbaar lool itam wax dëgg yàlla Euh, ndax ñëw mu mu xaw a demee noonu xam nga problème mu technique moom noonu lay demee waaye boobaak léegi saa yu kii rek ma ngi ko waat kañ lañuy ñuy dellu ba yàlla dogale ko nii euh, nu sant lool itam làqu-làqu gi sëñ Thierno wax itam loolu moo moo nu indi ngir nu feeñal ko ndax yàlla moom du nëbbatu yàlla fu dara ne rek xam na ko kon ñi koy dégg tey seetaan télévision Futurs Médias Euh, jàpp naa ni ñoo ngi seetaan lu baree bari ci jumaa ji tàmbali nañu yëggalaguñu sori nañu nag kon lu ci waay mën a def ma ngi nii néegub yàlla la rek fii ci Caaroy Lansar euh, yàlla na yàlla mottali xam naa fii la ñuy tàggoo rek ñu àndan koog Ibou Cissé mu baay ak seen xarit Alxaaji Njaga Sekk ci émission yowmal juma sant yàlla lool jox imaam soog mu tàllal ñu tàllal loxo yi mu ñaanal nu rek ñu tàggoo ba ajjuma ak jàmm incha allah. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة